en revient au communiqué de de de l'Assemblée nationale euh, communiqué Assemblée nationale quand même le pouvoir législatif bu ñu koy engagé mhm. Assemblée nationale dafa am mode de fonctionnement même pour que ngeen taxawal euh, la commission d'enquête il y a eu la une conférence des présidents dafa am ay procédures. xam nga kan mooy la personne morale de l'Assemblée xam kan mooy la personne morale de l'Assemblée nationale. le président. il y a que lui. moom moom daal de siège il peut faire un l'Assemblée nationale y a lui moo am les pouvoirs d'engager l'Assemblée nationale et il l'a fait et nous en tout cas groupe Benno Bokk Yaakaar on est totalement solidaire ak lui yeneen groupe parlementaire yi dégg nga ko waa PDS ils sont totalement solidaires ak maintenant nag. et et kii de Yewwi et de Wallu loolu sama yon nekku ci parce que waxaluma leen. donc président assemblée nationale il parle au nom. de toutes les de toute l'assemblée et de tous les députés il a parlé au nom de tous les députés. ça engage tous les députés au nom de gens refusé de signer de voter la loi il a parlé au nom de gens yoo xam ne dañ leen mujjee génn ci hémicycle pour faire voter cette loi là comment il comment nan la ñooñu nga xam ne dañoo bañ votu loi bi nan lañ mën a assumer euh, le communiqué de l'Assemblée nationale est-ce que à la place Benno Bokk Yaakaar warul woon def communiqué ñu xam ne kat lii c'est partisan mais engager l'Assemblée nationale muy wane ay grognement ay grincement de dents après la décision du Conseil constitutionnel quand même on peut s'interroger dama ne xam nga vous pouvez vous interroger c'est si droit c'est votre droit le plus absolu mais on assume pleinement le communiqué de l'Assemblée nationale totalement sans réserve et sans état d'âme. non vous Benno Bokk Yaakaar. dama vous assumez est-ce que Abba Mbaye assume euh, est-ce que euh, Birame Souleye l'assume est-ce que Ayib Daffé l'assume est-ce que tous ces députés qui ont porté le recours et sur la base euh, du du du euh, cette décision. a été formulé est-ce que député yooyu ils se reconnaissent dans dans le communiqué est-ce que du communiqué bi du affaire u bennoo président bi bennoo la euh, président groupe parlementaire bi bennoo euh, ngeen consulté waa PDS daf seen communiqué di wane seen mécontentement ak seen frustration comment une institution parlementaire peut sortir un communiqué comme ça Maïmouna la seule personne ñi nga tudd ñëpp amu ci kenn ku ci mën a engagé assemblée la seule personne qui que yow dafa mel ni déggu la seule personne qui peut engager l'Assemblée nationale, c'est le président de l'Assemblée nationale. Il l'a engagé et nous assumons totalement cet engagement du président de l'Assemblée nationale. Et Willan me dit qu'il n'était pas à la réunion du groupe, il était à Freetown. Damane. Abdoulaye Willan. Damane. Abdoulaye Willan. Il n'était pas à la réunion du groupe, il était à Freetown. Il était à Freetown, maa koy tontu moom ci télé. ne ko moom moo wax ak man à la ne ma bu dee cinquante et un pour cent du groupe ñoo d'accord je suis totalement solidaire du group moom Abdoulaye Wilane moo ma ko wax. par rapport ma ne ak tout ce non waxuma waxu commu communiqué bi même bu fekk déggoo li ma la wax man communiqué bi je di que c'est le président de l'Assemblée nationale qui engage l'Assemblée réunion de groupe bi muy wax laa wax moom ci boppam bi mu nekkee Freetown wax naa ak man téléphone m'a dit que je suis totalement solidaire si c'est même cinquante virgule nangam pour cent moom Abdoulaye Wilane il me l'a dit dama bëgg aussi nit ñi xam ne notre groupe parlementaire reste uni te amul kenn koo xamante ni mën na ci indi une désunion te li ma lay wax nii j'engage tous les membres du groupes fii may wax yow ni te doo dégg keneen ku indi beneen son de cloche man maa la ko wax